salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh mbokki téléspectateur Mourchid TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar ci seen émission bu mag bii di yoonu gàmm waaye tey nag ngeen may ma rek bala ma attaque bi ak sama invité bu jomba ñaawul bi ngeen may ma ma dellu fële jox kee di du Thiam mu ñëwal ci xibaar yi nga xam ni ci kàllaamay wolof la su fekkee Mamadou doom ngi may dégg rek kon ma bàyyi la ak caméra bi nga ñëw ci tëgtal li ñuy xibaaru wolof yi incha allah. mu ngoog uh, di ko jaajëfal bu baax uh, Omar Ndiaye di la nuyu di la ziara di nuyu itam uh, sa invité bi ngay dalal ci sa plateau yoonu gàmmu mbokk yi Neskis ñu sëgg ci li gën a fës ci biir xibaar yi li gën a fës asalaamualeykum mbokk yi di leen ah, dalal jàmm ci biir ah, xibaar yi ñu sëgg ci li gën a fës. li gën a fës ci biir xibaar yi daañu ko waxtaanee ñëwu ko Bassirou Diomaye Faye fii ci euh, Tiwaawan moom euh, njiitum euh, réew mi amal fii ab nganub ziara ànd ak délégation bu am solo ni mu ko defee démb ci gudd démb ci bëccëg bi moom Bassirou Diomaye fay ci diwaanu Kaolack ndaanaan laa ak muy wutali Mbour géej foofee nga xam ni moom njiitum réew mi daal dinay addu jëmale ci li nga xam ni moo di mbëkk mi ak jafe-jafe yu cee jànkonteel la ba tey ci wàllum ah, xibaar yi mbokk yi daañu waxtaanee jëwrin ji nga xam ni moo yor wàllum dem wàllum ah, télécommunication ak numérique fii ci ah, Sénégal di ki nga xam ni moo di Alioune sàll nga xam ni amal na ngan gu am solo fii ci kër Serigne Moustapha Sy mu mel ne rek ko fi dalal di maam Cheikh si capitaine ñaari góor yàlla yi daal di waxtaanee diggante bu rattax bi nga xam ni moo dox ci diggante këru diine yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllum politique bi ci Sénégal. leneen ci xibaar yi mbokk yi Seydil Hadji Malick Sy Serigne Babacar Sy kii moo sos tarixa bi ci euh, senegal keneen kii moo ko dundal moo waral Mourchid TV di leen euh, digtal ci ab euh, nataal ñaari góor yaay yàlla yooyee seen dund ak li nga xam ni daal dinañu koy def ci seen wàllum liggéey ci jal bi lu ne mal daañu ko faram fàcce ci biir xibaar yi neskis lay doon asalaamualeykum di leen dalal jàmm door ak li nga xam ni moo di ngan ki nga xam ni njiitum réew mi Bassirou Diomaye fay daal dina koy amal fii ci uh, diwaanu uh, Tivaouane tey ci uh, bëccëg bi moom Bassirou Diomaye Faye ànd ak délégation bu am solo daal di amal ab tukkib nemmeekoom ziaram ci biir tiwaawan ñu ko dalal nag di njiit yi nga xam ni ñoo féete ci wàll woowule ni mu ko amale woon moom Bassirou Diomaye Faye démb ci Medina Baye lu ni mel nag bokk ci tukki yi nga xam ni daf koy amal saa su xew xew xewu diine jubsee ci biir euh, réew mi mu ngoog moom Bassirou Diomaye Faye moomee sax la ñuy des ba tey ginnaaw bi nga xamee ni démb ci bëccëg bi daal dinay teg tànkam foofee ca Mbour Géej ginnaaw euh, jéeya gi nga xam ni xew na fa ci dibéer gi ñu génn ak léegi lim bu takku ci ay doomu Sénégal ñàkk seen bakkan ginnaaw ab gaal goo xam ni dafa suux ci biir euh, géej gi lu ni mel nag jur euh, coow lu rëy ci réew mi moo waral moom njiitum réew mi daal di fay teg tànkam ba mu fa demee itam nag am na kàddu yoo xam ni dénk ko taskatu xibaar yi ñu teewlu ko waaye jookoo gi war a am ci diggante diine ak euh, gouvernement bi muy état ñun lu ñu assumer la ndax doonte état bi laïque la ñun suñu conception laïcité nekkul ne yoon nu état nekkul ci diine gisewuñ ko noonu li ñu gëm mooy boo nekkee njiitum réew mi nga xamante ne nee nañu quatre vingt pour cent yi ak jullit lañu dix pour cent yi des gëm leneen kon cent pour cent yëpp ay woy gëm lañu ba tax na liberté de culte maanaam gëm dara di ko fësal bi leen constitution garantie ñu ñuy waat ne constitution boobu ñun dañ ko war a respecté ba pare di wattandi ko ñëpp respecté ko muy loi moo tax ba képp kuy dem ci bërëb yoo xamante ne da fa bëgg a jaamoo yàlla ci anam yi nga tànn suñu responsabilité mooy ñu yombalal la ko boo fa demee nga ànd ak gu tax nga mën ko matal. am nañu lu ñu waxtaanee sànq incha allahu rabi dinaa ci taxaw taxawaay gu mat sekk ndax yoon woowu yoon gu ñu gëm la waaye li nga xamante ne nag ci wàllu infrastructure la ci wàllum bërëb gi la lu ko war a defaree bëgg ñëpp ñi fiy ñëw di jóge bitim réew ñuy jóge fu ne ci biir Sénégal daw ñëw su fii ci jamono ji ak ci yeneen jamono incha allahu rabbi taxawaay mu ngoog moom njiitum réew mi ca Mbour ga foofee nga xam ni daal dinay saytu euh, yooyu nga xam ni xew na fa ginnaaw lim bu takku ci ay doomu Sénégal yu ñàkk seen bakkan. mu mel ni uh, ngan googee mu ngi ko amal uh, ginnaaw ba mu teewee woon ca Medina Baye foofee nga xam ni moom njiitum réew mi daal na yëkkati ay kàddu jëmale ko ci uh, wàllum mbëkk mi nga xam ni fi mu toll nii mu ngay am doole lool ci biir Sénégal dem sax bay xam ne ni lu ni mel lu ko jaaxal la terewul muy woo askan yi ci boppam ñu delloo siwaat seen xel surtout ndaw ñi toog ci biir réew mi daal di daan seen doole ci biir réew mi ngir gën a mun a tekki ci réew mi moom njiitum réew réew mi yamu ca daal dinay woo itam ñi nga xam ni ñoo di uh, way jur yi ñu wàññi uh, li nga xam ni moom la ñuy tuddee pression sociale ci kaw jeunes yi ñu daal di dellu si ci euh, Tiwaawan wax euh, ci euh, Alioune Sall mi nga xam ni démb mi ngi woon ci kër Serigne Moustapha si moom jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllum télécommunication ak numérique daal di fi amal ab ngan gu am solo ci dalalub ki nga xam ni moo di maam Cheikh Sy capitaine ak kii di Papa Cheikh Sarr ci ngan googe nag bari na loo xam ni itam jàngat nañ ko si ci wàllum waxtaan bokk na ci yenn ci sujet yi nga xam ni jàpp nañu fu mu toll nii. mooy euh, débat ci réew mi diggante këru diine yi ak euh, ñi nga xam ni ñoo ŋànk wàllum euh, politique bi ak itam li nga xam ni moo di dëgg ñu war a jox xew-xew yi ci mel ni li di guddik gàmmu ci Sénégal ñu teewlu reportage u Alioune Seck ay saafonto ci tukki nemeeku bu am solo gile teewaayu jëwriñ gi ñu dénk wàllu télécommunication dal dina intervenir ci contexte boo xam ne coowal taxawaayu kilifa diine dal dina lëmbe ci biir Sénégal. ndax lu rafet rekk a rafet. ndax Serigne Moustapha daf ñu yar ci lenn. daf ñu yar ci pragmatisme. ndax ku pragmatique. di nga comprendre ni. xëy na souci d'organisation. moo tax ñuy tudd ay parti politique ak beñ njaxas gu ëpp ci biir askan bi waaye réew lenn rekk a fa am solo mooy ñi am seen yéene bu rafet jëmale ci réew mi peu importe fi ñuy man di bokk li ci am solo mooy ñu nangoo sonnal askan wi moo tax loolu rekk moo ci am solo leeral yi nga xam ni daldi nañ bàyyeekoo ci maam Cheikh Sy capitaine nekk lu am solo ci fan yu mujj yi ci bërëb boo dem ci biir Sénégal ñi ngay waxtaane la nga xam ne moo di màggalub juddu Seyduna Muhammad di mawlud ndax ñi ngi wax gàmmu tudd yonent gàmmu gi yonent bi moomu ko ñun askani yonent bi mu fi bàyyi te mooy ñun jullit yi ñoo moom gàmmu gi. li tax li tax. ñun lay suñu occasion. ñun lay suñu occasion. ñu war a def un travail de comparaison. ñu war a def un travail de comparaison. diggante yonent bi nga xam ni moom mooy l'ultime musulman. diggante yonent bi nga xam ni moom mooy l'ultime musulman. ak ñun ñi nga xam ni dañuy tendre vers. ak ñun ñi nga xam ni dañuy tendre vers loolu. diine gu mate noonu mawlud nag doon na ab prox ndollu ngir nafar ci ay valeur ak ay principe yu lislaam ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci li ni mel nag dayratul mustarsidiini wal mustarsidaat doon ci ab référence bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moo di Alioune Sall mongook Serigne Moustapha si ginnaaw ñeent fukki at yoo xam ni mu ngi ko jagleel wàllum tàggat ndaw ndaw ñi di leen jox ay jikko yu baax ci réew mi tax na ba fi mu toll nii ñu jàpp ni euh, référence la bu kenn dul natable ci réewum Sénégal nu ni mel la waxee jëwriñ ji nga xam ni moo yor wàllum télécommunication ak numérique moom Alioune sàll ginnaaw ngan ki nga xam ne amal na ko fii ci kër Serigne Moustapha Sy bari na ay euh, mbir yoo xam ni naal na ko ngir diggante bi gën a mun a ratax ci diggante këru diine yi ak euh, li nga xam ni moo di way euh, politique yi rawatina daayiratul Moustarchidine ak gouvernement bu euh, Sénégal kàddu yooyee mi ngi ko dénk Alioune Seck ak Ousmane Ndiaye. comme ni ma ko waxee sëriñ bi dañu ñëwoon tey dans le cadre des visites bi ñu amoon ci foyer religieux notamment Tivaouane donc depuis ce matin ñu ngi sonni Tivaouane pour ziar d'abord parce que on sait période bi. c'est une période très importante euh, au-delà même de la communauté tidiane, au-delà même de, des moustarchidines et des moustarchidates. C'est toute la Oumma islamique qui est concernée mooy période de Gamou mooy période Mawlid euh, moo taxoon ñu ñëwoon euh, ginnaaw bi nga xam ne président la République jox nañu ay directives pour que ñu jël disposition matuwaay yëpp pour que lépp li nga xam ne mooy ci wàllum ndox mooy ci wàllum courant mooy ci wàllum communication pour que ñu jël disposition yépp yi nga xam ne am nañu ko pour que gàmm gi mën a jaar yoon. d'abord sur le plan professionnel à travers les engagements et puis en même temps en tant que talibé en tant que doomu dëkk bi ziar aussi ñi nga xam ne sunu ay wolore lañu sunu ay sëriñ lañu sunu ay guide lañu de manière générale parce que au-delà même de l'aspect religieux c'est des gens yoo xam ne comme nu ma ko waxee sànq ci Serigne euh, ñun le le combat que nous sommes en train de mener euh, pour l'émancipation de la jeunesse sénégalaise euh, moom mi ngi ci depuis plus de quarante ans donc il que benn référence dans moo tax euh, ñëw fi tey lu normal la et nous pensons même que au-delà du gàmm moom laa doon wax capitaine léegi. ñu jéem a xool euh, nan la ñuy indi ay jéego euh, pour que en tout cas jafe-jafe yi nga xam ne jeunesse bi am na ko tey pour ñu mën ci am apporter ci ay solution yoo xam ne solution yu pérenne lay doon. moom Alioune Sall jàpp ni këru diine yi am nañu cër bu am solo goo xam ni mun nañu ko amal ci wàllum fexe ba ndaw ñi mën a dund dund gu ñoŋ ci biir réew mi. ñu daal wax euh, ci euh, leneen euh, dem ca champ de course xam ngeen ni njeextalu ay bés gi ñu génn te lañ ko doon bale bale bu yaatoo yaatu boobaak léegi itam nag liggéey bi mu ngay gën di dox ci pegguk comité d'organisation bi ak ñi nga xam ne ñoo féetee ci wàllum technique ñu ci bari nag ba ñu leen tënkee suñuy micro lañ ñu xamal moo di ne liggéey bi mu ngi dox te itam nag fii ak gàmm gi dana yemb te itam gan yi danañu mën a ñëw teewlu ki nga xam ni moo di Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si ci euh, bërëb bi ñu teewlu euh, kii di euh, seen responsable ci micro Mbaye Diagne ak Pape Alassane tey nag bu ñu xoolee bu baax ñu ngi fii ci champ des courses du Tivaouane. nga xam ni fi la daahiratul Moustarchidina wala Moustarchidaat di amale seen guddi yonent bi xam naa ni dañuy dugg si biir rek ànd ak ñoom jël seen ay réaction ñu laaj leen fu liggéey bi toll. liggéey bi nag ñu ngi tàmbali depuis samedi quoi bi ñu balee ba pare ngoon maa bi ci la ñu commencé après trois heures rek ci lañ gontu ñëw commencé ci la ñu jot a taxawal bâche bii nii gars yi di kaabale nii. xoolee gàmmu gi li daan am ci ay jour ren amuñu ko loolu moo tax. parce que jour yu néew lañ ci am parce par rapport ak yi passé dañ ci daa am distance bu yaatoo yaatu yaatu xam ne da ngay mën a jël sa temps liggéey te ren nag yàlla dogal na ne amuñu temps boobu noonu. affaire bi mi ngi gën a am solo ci bu ñu tollee ci ñaw plafonné suñu waree plafonné fii bu ñu indee fi ay tissus ñun ñoo koy ñaw pour ñu mën ko plafonné ndax euh, mooy taaral fii yaakaar naa. voilà léegi boo xoolee base bi ni mu formé woo dafa am benn benn alignement bu nekk ci biir. plafond bi léegi doonul lu ñuy takk mais lu ñuy monter lay doon mook bâche bi ñoo yam même forme buñ leen di jox quoi xam nga bâche bi day jógee Sine mais mun nañ plafonner sans bâche bi après li nga doon am ci bâche bi rek ngay am ci plafond bi. Euh, niveau bu ñu yore mooy niveau euh, électricité euh, ñu ngi ci mais li ñuy wax aussi ci wàllu liggéey bi ci wàllu nawet bi suñu système dañ ko changé par rapport ak ñu doon liggéey daaw daaw la malgré que tawoon na bagages yi yàqu. ñu jëloon ci leçon boo xam ne euh, ñaan ñu yàlla su tawaatee loolu dal ñu ba tax na euh, kaabal yi ñu doon jàllale ci suuf di ko gas am na yeneen kaabal yoo xam ne euh, duñ ko gas dañuy jéem a aj kaabal yi ci kaw pour protection ak nit ñi ñu fiy ñëw. ngook champ de course ña ngay wàcc bu baax jëm ci li nga xam ni moo di guddik gàmmu gi. lu ni mel la ñu nemmeeku itam ci kër euh, maam élage euh, Hadj euh, ca Thiès foofee nga xam ni famille Ndiéguène ñoom itam ñu ngi waajal seen bopp bu baax jëm ci bës boobu boobule. lu ni mel la waxee ki nga xam ni moo yor wàllum organisation boobu boobule jàpp ba cëg goo xam ni ñu ngi ko jagleeloon wàllum set setal fexe ba gox ba mën a yemb file ak gan yi di fa yegg si Cheikh Fadel Ndiéguène mi ngi ci micro Ousmane Ndiaye. def journée set setal bi. comme niñ koy waajale ci CRD yeeg CDD yi ak eh, ñi nga xam ni ñoom ñooy autorité yi ah dafa am ñuñ ci jàppale ñu ñuñ ci jàppale nag ah, ñoom ñoo ànd ak ñoom ci bis bii principalement nag waa SONAGED ñoom ñi nga xam ni ah, ñooy déployer indi seen i moyens indi si aussi ñoo xam ni ay nit la yoo xam ni dañuy taxaw pour nettoyer ñooñ it wax dëgg yàlla ñooy partenaire principal bi nga xam ni tey jii at mu nekk ñu ñëw taxaw indi seen matériel mais indi tamit seeni équipe ñu ñëw nettoyer koñ bi waaye yamuñu foofu mairie bi surtout la mairie de la zone nord ñi nga xam ni suñuy dëkkandoo lañu euh, xaar seen a ngi nii représenté le maire euh, Mamadou Diakhaté ah ñoom it ñu ñëw indi euh, seen i jumtukaay lu jiitu lool it ñoom wax dëgg yàlla comme cet gi dafa ànd ak leeral ñoom déployé nañ tamit euh, loo lépp lu war ci peinture lépp loo xam ne rek day leeral koñ bi waaye nag ànd ak ñun ci bis bi aussi indi ay équipe indi tamit matériel boo xam ni ah dañ koy jël pour que euh, liggéey bi mën a sotti mais aussi la mairie ville aussi ñoom it dañuy participer ci liggéey bi démb euh, wax nañ boole ñu ak Cheikh Diouf voir yi ñu indi matériel boo xam ni dañ koy liggéey ci suba moom lañ demaaree matériel boobu euh, booleeg équipement équipement bi nga xam ni waa euh, Sonaged indi nañ ko. mu ngoog di leen euh, jaajëfal ci teew bi ngeen ñu doon teew li di ànd ak ñun ci biir xibaar yi Omar Ndiaye mu mel ni xibaar yi loole moo nekkoon li ci gën a fës. waaw kay jërëjëf Hadji Modou donc ñu dem waa résiteur dellu si waat incha allah.